mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax tey nag boo leen ñu gisee ñu ngi fii ci Sandaga ñëw uh, waxtaan seek sénégalais yi soxal li nga xam ne moo di ñëwum ak ki nga xam ne moo di uh, Macky Sall ci élection législative atum 2024 yi nga xamné ñen ci ay jegenaaleem daal dinañ koy rek lancer né ko ki fi nékkon njiitu réew dina ñëw battre ci campagne wante it ci démb mom Macky Sall ci ab télé étranger daal dinay génn mentir kàddu yi nga xamné Ousmane Sonko daal nako won yëkëti yëkkati ci chiffres yi nga xamné ñom lañ fi bayyi mom ak gouvernement am su ko defee dañuy daal di dugg euh, jànnoo ko sénégalais yi waxtaan ak ñom c'est un ancien président lén rek lañ ko mëna topé mo mooy trahison et puis il est il a plein droit par exemple revenir ñëw battre campagne parce que son parti est là. C'est lui qui a créé le parti, donc il a droit à venir, par exemple, supporter le parti. Euh, donc, euh, l'opposition, tout ça comme ça, les les me menacer, de ni par exemple, tu n'as pas le droit de venir, pour jëm le par exemple xëbal pour nga tiit bañ parce que xam ne su ñëwee par exemple dans daf leen titre. xam nga xam nga toujours il y un am noo koy koñee ko su dañ koy tëj wala nagam nagam mais ba ci raison dañ koy c'est ça la question

ni mu doon yore réew mi ak réew mi doon doxee bon xam nga man li ma mënul euh, concevoir euh, nga ni woon sa projet nga wax projet ba pare euh, par exemple ñëw tegoo projet di wax ay dañu lekk xaalis wala nangam nangam ba pare di créer encore par exemple ay yeneen structure yoo xam ni comme ni ñu daan bañ ci toog muy dox yenn gos ñuy toog muy dox xam nga loolu déjà dafa am dafa laaj xaalis mais ñoom 600 dafa am 650 milliards yoo xam ne ñoom dañu ko jëloon déjà mais 650 milliards fu ñu ko def mais ñoom am nañu projet bon su ñëwee nañu jéem avec la justice c'est la justice qui fait la justice mais c'est pas que par exemple ñoom ñuy toppaate déedéet nañu bàyyi ñu def justice top leen ñoom ñu liggéey seen liggéey lii ba avancé ñu souhaité et puis man euh, je ne suis pas contre même euh, parce que man Diomaye il me plaît beaucoup parce que dafa Yaro ku bon je le supporte parce que nit moom soo yaroo mën lu mais quand même man li ñuy def bon ça à la sorcière dañ ko yàgg bañ ci Sénégal te loolu moo dul yoon am na ñoo xam ne par exemple affaire justice nañu bàyyi justice mu def euh, c'est tout waaw ah waay d'accord euh, ñu gis yaa ngi wax sànq say bi wax euh, projet lañ ñu jaay barki Dembo Ndiaye euh, ñu gis ñi nga xam ne ñoo di bile partie mu daal di génn seen vision deux mille 2050 ñu bëri ne li mbir mi photocopie la dañoo rek daal di photocopier ki nga xam ne moo di Macky Sall ñu ngal PS e. yow ndax même gis-gis nga am ak ñi nga xam ne ci boobu boobule fànn la ñuy àddoo bi même qui même même ben bi la la rek ben rek et puis xam nga par exemple ay man 2007 man j'avais pas cru à ça man xam nga lu ma ko yaakaaroon ñoom suñ ñëwee rek rak tak affaire bi day arrangé wu par exemple dans un an deux ans mais xam nga 2050 sama compagnie gi botul sax ndek yi dañ koy soos duñu mëna lek ci bu baax comment li ma la wax man j'ai 72 ans maa ngi dugg sama 73 ans kon 2050 xëy na pour ñaan la quand même mais ñom euh, loolu suñu ko waxon nit ñi kon nit ñi est-ce que ñu bari dañ calculer di xaar ba ay 2050 ñu amoon nañu programme boo xam ne ñëpp loolu lañu yaakaaroon parce que Macky Sall il a assez travaillé Abdoulaye Wade il a assez travaillé kii yu bëri yoo ñoom defar nañu ko ñoom li waroon def rek mooy par exemple loyer bi dafa cher benn dund bi dafa cher courant dafa cher ndox dafa cher yooyu yëpp dafa cher yooyu dañu waroon ñu rek fexe ni ñu koy réglé mais par exemple ay projet 2050 ñu man vraiment euh, parce que yaakaar moon loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax papa. jaajëf jaajëf kontaan nañu ci yéen bu baax jërëjëf merci beaucoup. loolu ay dóor la rek seen juróom-ñaari xel seen ñaar juróom-ñaari xel xalaatul Macky Sall dugaat ci réew mi nii il a nag mais dafa am lu mu bàyyi ci réew mi te loolu mu bàyyi ci réew mi noonu moom xam na ne dinañ ko régler incha allahu rabbi après législatif yi loolu lépp dina leer mais ñun li ñu doon neex sax mooy moom Macky Sall moom mu ñëwoon campagne si su boobaa la dóor yi di gën a yomb. Macky ci boppam bu ñëwoon bokk ci campagne bi ñun su boobaa la dóor yi di gën a yomb ndax xam naa ne su boobaa danañu yombal suñu campagne ndax tey ji tey ñaata bon am na ñoo xamante ni tey seen rakk dee nañ ñan moo kan moo leen rey kan mooy principal responsable mooy Macky parce que moom moo jiite woon état bi am na ñoo xam ne seen i mbokk am nañ ci ay blessures yoo xamante ne nii mara day taal kan mooy le principal responsable mooy Macky parce que moom moo nekkoon le chef de l' moo doon joxe ordre même bu nekk loon si terrain bi sax ordre yi moom la woon te ba léegi ni ñun ñi fi dee woon ñëpp xamuñ ci dara te ñun vraiment ñun dañu sonn ci combat bi. kon tey dañuy ñaan yàlla bon Ousmane Sonko ak euh, Diomaye yàlla may leen courage ak fit bu ñu dem ba loolu lépp ñu ñëpp koo xam ne ni tax nga ci ñu jaarale fi ñu la war a jaarale te xam naa ne loolu bu ñu ko toppee Macky Sall moom du ci rëcc. dañ ko poursuivre au xam naa ne bu amul sens mooy doon président bi ñuy njëkk a au <laughs> trahison. d' accord euh, daanaka euh, ba ñu xëyee ñun ñëpp ñoo ko daal di euh, gisandoo wala sax depuis démb ci guddi ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko yaa ngi koy tudd sànq daal di woon def point de presse ñoo xam nga xam ne moo di chiffre nga xam ne moom jiitu réew mi Macky Sall bàyyi woon na ko fi ak gouvernement moom mi nga xam ne moo di Macky Sall mu daal di génn démb.

indi ay chiffres nga ne chiffre bii temps la temps la temps la parce que Ousmane bi muy wax ay chiffres la joxe ñëw rek di wax hasard nii dafa joxe ay chiffres. kon donc Macky Sall aussi bu ñëwee ne loolu du dëgg moom war na mën ay chiffres yoo xamante ne nii dana wane ne lii kat euh, lii mu wax nii lii mu am waaye lii amul mais ñun gisuñ dara loo xamante ni Macky Sall teg na ko ci table bi loo xam ni convaincre na ma ñun patriote yi boobu amul dara lu ñu convaincre ci moom ñun bu dul dara sax moom lu muy wax lu ñu convaincre ñun xamuñu ko. man boobu lépp loo xam ne ni moom Macky Sall da koy wax rek man gëwuma ko parce que daf ñoo yàgg wax lu dul dëgg yàgg aussi yàgg rey askan wi mag yi daf su may wax ci moom sax yàlla day yàlla xam na ne du ma du mën a àggale parce que sama xol day jeex parce que fi mu teg réew mi moo metti fi mu teg réew mi moo metti moom bu fekkonte ne li muy wax noonu dëgg la ci moom damay day woote conférence de presse am document yi nga xam ni yëpp mu ngi ak moom mu ñëw génne ko un wane ko sénégalais yi gis ko. su boobaa ñu wax mais en tant que deful loolu moom ñun mënuñu gëm li muy wax man de li Ousmane wax laa gëm parce que moom au moins indi na la ay documents tegal na la te indi na ay ingénieurs yoo xam ne ñoom xam nañ li muy wax tegal la ko te it FMI weddiwul loolu ah ci li ma yaag ci li ma ci li mu wax te yaakaar naa bu fekkoon loolu amul kon FMI ci boppam mooy njëkk a weddi loolu mais weddiwul loolu kon donc Macky moom na dem nelawi d'accord euh, daanaka yaa ngi koy wax sànq mais ñu bëri ne lu tax moom Ousmane ko xaarul rapport au cours euh, de comptes bi nga xam ne lépp luy financement public ñoom ñoo koy daal di euh, fësal dafa rek daal di précipiter mbir mi. no du question rapport cours des comptes parce que ay rapport la yoo xamante ni yàgg nañu nekk ci table bi lii du loo xam nii da koy da ko ay rapp loo xam da ko inventé de. parce que Macky Sall ci boppam yàgg naa wax ne nii am na ay kii yoo xam ne nii maa si teg sama conc la wala du dëgg kon donc kii bu ñëwee dafa génne li defoon ci tiroir yi la génne rek teg ko ci mbedd teg jox ñu ko amul dara loo xam ne da ko fay créer lépp lu mu fi fekk la li mu wax lépp lu mu fi fekk la dafa ñëw génne lañ dencoon la génne wax ñu ko ñun lañ ñu doon nëbbu ñun askanu Sénégal moom lañ ñëw génneel ñu ko kon donc ñun dañuy ngàcce ngalaama Ousmane Sonko yàlla bu yaakaar tas te gëm naa ne yaakaar du tas si moom ndax suñu digganteeg moom gëm naa ne bu war dee am ñun ñoo koy war waaye moom du ñu mës war te jomaayit ko am yi ko am ngor la moom itam Jomaay Sonko ànd boobu sa waay ku koy xaar danga nga xaddi de. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw ñu ngi leen doolee kii rek leen bëggee bu baax a baax a baax. suñu tele la ñu ngi ci sant di ci gërëm di yàlla suñu borom def ci xeewal rek. yéen public seen TV di nuyu seen directeur Aïssatou Diop Fall di jigéen bi man góor la lion le lion de tous les journalistes maa ngi koy ziar bu baax. di kontaan ci moom ak tous les marchands ambulants yi nga xam tey ñoom lay coordonné au niveau du parti démocratique sénégalais les Karimis di leen ziar di leen bëggee di bëggee tous les membres du parti démocratique sénégalais. di nuyu aussi tamit tous les sénégalais yi nga xam tey ñoo ngi chaîne télévision bi nga xam ne tey Aïssatou Diop Fall moo ko jiite yaay Fall boobu maa ngi koy bëggee bu baax. Euh, papa ñu gis ki nga xam ne moo di euh, Macky Sall daal di euh, génn démb démentir. li nga xam ne mooy euh, chifre yi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina ko woon euh, génne ne euh, dëkk bi biñ ko fekkee dañ ko fekk ki daanaka ay bor ak it la nga xam ne nii somme yoo xam ne nii dañ ko daal di falsifié wala sax ñu daal di koy gonflé moom mi nga xam ne moo di nag Macky Sall génn dee mu ne dëkk bi ba muy dem da ko bàyyi mu veer ban jàngat nga am ci lii di réponse Macky waaw jàngat bi ma ci am moo ci réponse Macky Sall Macky Sall li ma wax c'est positif Ousmane Sonko li ma wax c'est

ñun gëmuñu ko Ousmane Sonko ñun gëmuñu ko parce que le problème mooy moom taxaw na fii carrément ni moom génnee programme am woo tous les journalistes au niveau du monument renaissance teg livre am ni lii mooy suma programme su ma jotee réew mi tey mu dem tey ba yàlla tey yëkkati réew mi teg ci loxo moom ak Diomaye ñu ne ko sa programme mu naan maa ngi koy tëggulu kon xam nga ne kon kooku ay waxam wax dëgg yàlla jorul dóor sa doom waaw Macky Sall nag li mu wax c'est kontaan nañ ci moom vraiment aussi liste bi nga xam ne tey ji opposition bi yëpp booloon na nekk benn vraiment ñun loolu dañ ciy kontaan parce que le problème mooy ñii fi nekk actuellement mënuñoo yor Sénégal mënuñu ko yor parce que li ko waral mooy amuñu programme xam nga porte-monnaie programme sax amuñu ko xam nga te aussi tamit amuñu ay partenaires te kenn xamul leen te aussi niñ bëgg a yore réew mi noonu kenn du ko yore réew. réew boo koy yor da ngay waxtaan ak doomu aadama yi xam seen i jafe-jafe ak seen li nga xam ne tey jii moom mooy seen soxla nga fajal leen ko ñoom nag wax dëgg yàlla neexul ba neexul mënuñoo dem comme ñoo dem nag man dama doon ñaan Diomaye ak Sonko ñu dimbali ñu ngir yàlla rek ñu démissionné parce que wolof Njaay dafa ni jël bu ndaw moo gën jël bu mag xam nga parce que ñoom bi ñuy laaj réew mi ah, dañ doon wax naan man dañuy change Sénégal dañuy def lii dañuy def laa ba boo xoolee booy marchand ambulant yi ma jiite woon ci bëri tey jii ñoom ñëpp bàyyi nañ leen chaque jour ñoo ngi may woo naan ma grand ñun Ousmane Sonko pare nañ ci moom pare nañ ci Diomaye ki ñu soxla mooy Karim Wade te wax dëgg yàlla kon tey bu coalition bi amee tey Karim Wade nekk ci biir tey coalition bi day gagné waaw Macky Sall aussi tamit li mu wax ni moom day ñëw pour campagne ci dafa war a ñibbi si ci ànd ak Karim ñëw campagne ci parce que Sénégal mënuñoo am lu gën Sénégal ak lu ñu mënta am ak fuñ ko ak nombal tànk mu leen mënta takkal ci àdduna mënuñoo takk benn nombal tànk bu gën seen réew parce que réew bi mooy seen patrimoine kon Macky Sall bu ne day ñëw ah dañ koy teeru teral ko tertu ko parce que aussi tamit liggéey na ci réew mi loo xam ne vraiment jar na teeru dana teral ndax boo xoolee tey teer bi actuellement bi fi Macky Sall di nekk teer baa ngi dox normal tey jii teer baa ngi paanu nit ñi mënatuñoo dem boo ci duggee day tàng jër BRT bi aussi tamit gis nga ko ñëpp gis nañ ko ah changé parc automobile aussi tamit Sotrac muy dakaar dem dëkk ñëpp gis nañ ko. kon am na loo xam ne Macky Sall liggéey na ko ci réew mi ñii nag wax dëgg yàlla mënuñoo dem mënuñoo liggéey réew mi parce que nit bu président bu faloo 100 jours nga koy may téeméeri fan. tey ñu xool ndax kii am na capacité yor réew mi wala amul capacité réew réew mi man la wax dëgg yàlla ñoom laa votel ndax lan Karim Wade moo ne nañ ko jàppale ak papa Abdoulaye ñu votel ko. mais dañ koo rëccu nag rëccu nañ ko parce que li tax ñu rëccu ko mooy premier wor yi nga xam tey moom la njëkk a wor mooy jomaay ci boppam ba mu soxlaa ba jaaxle ñoom ba ñu sonnee jaaxle tiit ci Amadou Ba dañ daw wuti kër papa Ablaye Wade Ablaye Wade joxe consigne de vote ñu jàppale leen ba ñu foloo ba léegi kenn mosul gis bu ñu demee gërëm Ablaye Wade wala ñu gërëm waa PDS kon loolu premier wor yaa ngi noonu moo tax ñoom daal vraiment neexul ba neexul dañoo war a génn ci réew mi Farba Ngom aussi tamit loolu mu wax c'est waaw parce que ñoom dañ doon tam dem mu naan ministre yi Macky yi dañoo sàcc alal tey amuñu ñu jàppale ay ay directeur ak ah ay daaf ak yooyu kon yow wax dëgg yàlla la nga waxoon mënoo ko ah dàq sa gilaan waxaat soxla nag ñoom loolu lañuy def waaw moo tax réew mi daal actuellement vraiment Sénégal yi maa ngi leen appel ñoom ñëpp nañ woote ci liste bi nga xam ni tey mooy wallu Sénégal muy liste bi nga xam tey Macky Sall moo ko jiite ànd ko tous les leaders politiques ndax suñu réew ko dañ ko war a avancer ndax Sénégal fi mu nekk nii kenn mënu la ko comprendre Sénégal la nga di dootu mel ni dëjub liir ku nay xewi xewi nit ñi amuñu xaalis sonn nañ boo xoolee ouverture éco ren yi ñun ñi nga xam ne dañuy jaay ay saag saag chinois yi rek moo jaraan yi jar ay 2000 3000 mais saa yu cher yi jarut parce que nit ñi amuñu luñ ko solo am na ñoo xam ni seen saagu daaw la ñuy jàng vraiment mbir mi daal doy na waar doy waar goo xam ne daal métti na daal waaw métti na trop ci sénégalais yi kon daal. Macky Sall ñoo ngi koy wax mu yegg jàmm incha allah ci kàttanu yàlla ci barke borom Touba Sénégal yi voté massivement jëlee fi Ousmane Sonko ak Diomaye suñu Sénégal jëm kanam parce que ñoom dañoo delloo réew mi ginnaaw ah waaw dañoo delloo réew mi ginnaaw réew mi da doon daw ci jamonoy Ablaye Wade jamonoy Macky Sall ñëw réew mi du waaxu ñoom nag bu ñu dikkee réew mi dañuy ndóot mel ni ruy bu dog puusut paasu kon vraiment Sénégal yi soxlawaat nañ Macky Sall soxlawaat nañ Karim Wade ci réew mi. soxlawaat nañ képp koo xam ne am nga ambition ci Sénégal soxlawaat nañ la ñun ci réew mi incha allah ñoo ngi lay tàllal suñuy loxo di ñaan suñu réew avancé jëm ca kanam waaw man daal lool laa amoon lu ma ci wax daal. waaw ñu ngi lay jaajëfal baax kàddu yi rafet na Pape. waaw kon maa ngi leen di sant di leen ñaanal rek di ñaanal suñu directrice ay Diop Fall di ko ñaanal gudd fan ak wér vraiment ci jàmbaar gi nga xam ni gaynde la. parce que doon jigéen tamit du tey doon gaynde ndax gis nañ fi Aline Sall Diatta gis nañ fa ñeneen ak ñeneen te vraiment li muy question yi muy ak aussi débat yi muy teg débat yu am solo la kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax teleem bi yàlla na ko na bépp di seetaan ci barkab rasulillahi barka borom Touba yaay faal boobu maa ngi koy jaar bu baax di ko bëggee jërëjëf. ok vision 2050 waaw xanaa di ñaan yàlla rek ñu fekkee te tal ko ak jàmm mais 2050 moom xam naa ne. Eh, temps bu gudd la waaw liñ ci wax nag liñ ci liñ ci mébal ak liñ ci xalaat nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla eggale leen ko ñu fekkee ko tal ko loolu moo ci sama xalaat. waaw d'accord man de ni ma ko gisee mooy waxu Macky Sall laa gën a ko wax Ousmane Sonko parce que teggi tuuma tamit lu la ngi wax rek te ñoom ñoo ne bunye amul état de grâce dañuy dohal. rek doxal 2024 bu ngeen ma joxee ma soppi réew mi wax deug yalla gisunu dara ñi ngi ci six mois yo xamanteni gisunu dara waaw man mom awma ci yaakar ma ngi japp ne dal dañ ñoon nax ba jot nguur gi Macky Sall nak limu def lu jaadu la moy teggi tuuma yàqamti woon nañ sa mu def ko tellement mu wax deug yalla ku ci mel ni man lam lañ Macky Sall waaw lool mo ci sama wax na teggi tuuma leeral affaire bi parce que li ñuy wax ni man de ah, man de gëmuma ko xaw ma ba xam ñom gëm nañ ko wala gëmuñu ko li ñuy wax ba xam am na wala amul man daal gëmuma ko man waaw. Euh, d'accord euh, démb ñu gis euh, rek ñu ne moom njiitu réew mi ñu ko jege sax ne dina ñëwaat battre ci campagne ndax yow jàpp nga ne moom ki fi nekkoon njiitu réew di Macky Sall dina ñëw battre ci campagne ci élection législative yi ñu jëm nga xam ne ànd na ci ki nga xam ne moo di Karim sa Wade ci boobule coalition takk Wallu Sénégal. waaw man de sama xalaat sama xalaat laa wax bu ma sañoon moom Macky du ñëw. du ñëwaat sax comme toogoon na bi ba génn te Macky homme de parole la moom bu ne doyal naa ci réew mi sëkk yaakaaruma mu ñëwaat xëy na nag buñ ko defee tëdd li sëkk yooyu xëy na mu jàppale leen d'une manière mais pas muy ñëwaat di battre campagne loolu daal yaakaaruma gëmuma ko gëmuma ne mu ñëwaat waaw mais en tout cas mën na leen jiite mën na leen won affaire yi xam nga waaw. loolu la loolu laal waaw. ñu ngi baax jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ok. Euh, c' est vrai que démb dégg nañ Macky Sall wax gis nañu avant boobu aussi mu def benn tweet xaw cee mer sax naan c' est totalement faux mais ci biir ba muy tontu dafa wane ne li ñu ko wax yëpp moom dëgg la en vérité ndax dañ ko ne dafa lepp xaalis bu bëree bari mu d' accord ne dafa leb xaalis bu bëree bëri. Euh, peut-être fu mu d' accordul rek mooy fi ne dafa leb xaalis bu bëree bëree bëri te benn parti bi. gisaguñ ko ci comme au Sénégal Ben parti bi gisaguñ ko ci liñu Sénégal Mon mu ne les leb xaalis bu bari mais xaalis boobu bi ko lebbé ci Sénégal lañ ko lepp donc d'accord nañ ci lebb bi ñaari parti yépp mais xaalis bi ñuy fan la dugg def c'est ça la grande question jusqu'à présent euh, président Macky Sall tontoogul si loolu peut-être que avec le temps dina mën comprendre préoccupation bi comprendre question bi apporter ci des réponses très claires dans tous les cas li ci kanam yàggatul ndax ñii dañoo ñëw nekk ay euh, njiit yu bees euh, xayma li fi nekk mooy ñu def benn diagnostic donc Ousmane Sonko ak ay ministre am toog daal di wax population bi ne ñun lii lañu fi fekk lii la ñu gis te li ñu gis mooy euh, les données économiques du Sénégal ni ñu ko daan présenté ak ñun ni ko gisee tey dafa juwaatloo c'est pas du tout la même chose donc loo rek la Ousmane Sonko wax et di m'as sànq bi ñuy waxtaan ci leneen dem nga ba ne ma Ousmane Sonko war naa wax mais dafa na xaar ba ñu confirmer par la voie normal lu mu wax noonu noonu moo tax loolu dina ñëw dans tous les dina ñëw euh, su ñëwee dinañu xam et je que dans tous les cas boo jiitee dangaa ngaa war a jiite ci rek ci dëgg chiffres yi lu mu doon rek loolu nga war a joxe ndax soo bëggee dem il faut nga xam fi nga toll soo xamul fi nga tollu xam tamit fi nga bëgg a jëm baax na mais boo xamul fi nga toll yoon bi nga nar a jaar moo narul a baax mais boo xamee fi nga toll xam fi nga jëm. mën naa am boo jëlee yoon day nekk yoon bu baax te di nga àgg ci jàmm te boo àggee dina nekk njëriñu askan bi. donc nag euh, liñ daan def avant bu fekkee loolu moo am du lu baax liñ fas yéene def mooy teg lépp ci dëgg teg lépp ci jub jubal jubanti et je pense loolu mooy njëriñu Sénégal. Euh, d'accord euh, ñu euh, daal gis ne génne nañu vision 2050 mu nekk la nga xamné ni ñu bari ak rewuñ ko danaka comme niñ ko foogee woon mu di ñu bari dañ ko jappé plagiat wala sax photocopie version atum deux mille bi ne waaw dañoo génne gis-gis bu bess ñu bari dañ japp né plan la mais du plan mais gis-gis la dañ ne tay fi lañ tollu muy 2024 mais dañoo bëgg yóbbu Sénégal fini muy 2050 2050 ñom lu ñu bëgg moy képp ku xol Sénégal fépp foko ko mënta xoolee rek Sénégal bu nat la lay jox donc lool moy vision bi mais vision bobu chaque juróomi at amna plan buñ ko tëggal plan bobu nak moy wane yoon yi ñun ñu nekk parti bu bess bu ñuy wax pacte parti pour l'action euh, la convergence le travail et l'équité sigil Sénégal tay ji nii ñu signé ben alliance stratégique ak wa passef di leen jàppale ci gis-gis parce que dañoo bokk ñun tamit gis-gis parce ñun lu ñu bëgg mooy ñu tabax Sénégal bu bees. Sénégal boo xam ne nii waa Sénégal ñoo ko moom ñoo moom koom-koomu Sénégal Sénégal boo xam ne dañ koy liggéey te waa Sénégal ñoo koy liggéey Sénégal loo xam ne bu ñu ko liggéeyee aussi waa Sénégal ñoo koy jëriñoo ñun taxawaay boobu la ñu am moo tax ñu mën a ànd ak ñoom ci seen gis-gis boobu. donc gis-gis boobu c'est important lépp képp kuy jiite ci kaw gis-gis nga war a jiite même li ñuy naan ay projet programme yëpp gis-gis moo ko jiitu donc gis-gis mooy indi le fait que nit ñi xam ne tey bu fekkee ne Sénégal ci ñaar la tool nga ne fii ak juróomi at wala fii ak ñaar fukki at wala fii ak ñaar fukki euh, at ak juróom Sénégal bi toll ci ñaar dinaa fexe ba mu toll ci ñaar fukk et je pense que c'est très bien gis-gis bi ñu am gis-gis bu baax la bon ñu ne plagiat lan la ñuy jàppee plagiat plagiat mooy kenn togg ah Adja Adja Ndade mel na ni c'est vrai que moom ancien président Jérôme nee woon na campagne bi moom mooy ñëw jiite les troupes wàcc ci terrain bi battre campagne parce que dafa bëgg am dara bien que xam na ne mënul am dara c'est vrai après ku bokk ci moom jóge ko loolu Farba ne président dina ñëw mais jàpp nañ ne président bëggul a ñëw te ñemewu la ñëw te gis nañ ne commencé naa campagne mais ci whatsapp bi lay campagne te ragal nañ ne ci whatsapp bi lay yem tamit. ah moom mooy <laughs> njiitu réew mi du ñëw campagne si fii ci réew mi mais lan moo ko mun a fekk euh, bu euh, duggee ci réew mi euh, ñëwaat à nouveau ci langum politique donc te mu ngi ci déjà ci langum politique bi mais à distance. waaw dafa nekk koo xam ne nii Sénégal da koo jox lépp li gën a màgg ci Sénégal li Sénégal gën a fonk ñu jël ko jox ko ko ñu jël ko ba def ko buur def ko mi mais tey su ñëwee bëgg di xëccoog ay xale di dàkkasanteeg ay xale di wàcce boppam ba ci suuf ci ay candidat député je pense que dafa xamul àndam mais boo xamoon àndam day toog ci àndam du dugg ci lii. c'est la première fois un ancien président ñëw wàcc à ce à niveau moment boo xam ne nii moo naa toog ñu koy sargal di ko tatagal vraiment jox ko cëram jox ko wàccuwaayam delloo ko lu moom yëpp mais xam nga langue politique bi des boo ci duggee.

merci beaucoup mbokk yi euh, ñu ngi ko gaa di euh, déggandoo tey euh, ñu ñëwoon fii ci Sandaga ñëw waxtaanee ak yi ci ñëwu Macky Sall wante it génn bi nga xam ne daal dina koy génn démb àddu ci chiffre yi nga xam ne Ousmane Sonko daal dina ko woon génn ci ab conférence de presse kàddu sénégalais yi rek moo di ki nga xam ne moo di moom jiitu réew mi ñëwam ñu ngi koy xaarandi ñenn ñi nag ne ñëwam daanaka bu ñu sañoon du am wante li nga xam ne moo jëmalee ci chiffre yi daanaka avis partagé la rek ñi le ne yooyu les chiffre moom Ousmane ko ci dëggam na ne wante it uh, moom uh, ki nga xam ne moo di uh, Macky Sall waroon a génne ay firndeel wane rek ne bi muy jógee ci réew mi lépp rek a ko jaaroon ci yoon bu ko defee nag di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen sujet d'actualité